Je suis victime de la région côtière qui m'a beaucoup frappée, qui m'a qui séparée de ma famille, qui m'a séparée de ma communauté. J'essaie de me tenir parce que là où je suis, c'était une vaste maison. Parce que maintenant, vous voyez ce qui reste dans euh, cette maison. Mais là où nous sommes, il y avait des cimetières, il y avait des terrains de football, il y avait des espaces tout est détruit, tout est englouti dans la, dans la mer. diggante Ndiaga Samba ba Goudiou Lankar lépp benn buum bi la lépp yàqu na mu ngi nii gis ngeen si yéen si gisal seen bopp mu ngi nii géej gaa ngi nii kenn mënu koo téye lenn daal moo ko mën a téye mooy xam-xam ak doole moo ko mën a téye de mais li fi ne nii li ñu def nii ñun ñëpp ñu ngi ñëpp suuf si ñu ngi jëli xeer jël ay saako di def mais dara dara mënu ko si parce que lii yàgg nañ ko fee def mais après geej bu ñëw da koy jël ak wat ndox mi mo upp doole ñuy def ni yëpp nañu ñaan yalla gaay defal leen dimbal ci geej gi defal leen ci dimbal ñu mëna a ñi fi dëkk mën a dëkk. autorité ba nek ñëw na fi mais dee na à chaque fois à chaque fois dee na nuyu kër gi nii léegi nuyu kër rew woon mu won police si boppam bi mais ba ni da la jëra dem rek la jëra dem rek ñu ngi nii mënoonoo dara xamoonoo dara. c'est vraiment dommage ce matin là où nous sommes c'était une euh, cour très basse. Mais maintenant, comme vous le voyez, tout est route. Moi aussi, ça sont mes belles-filles. Toute ma famille est séparée. Nous vivons ce même phénomène. Chaque fois qu'il y a une, nous vivons le calvaire. Donc, euh, nous lançons aussi un, euh, un, cri d'alerte. ñi yëpp affaire bi moo fi jëlé ñëpp ñi fi taxu li moo leen fi jëlé xam nga ku sañoon fi ngay dëkk ku sañoon fi ngay dëkk mais géej gi moo leen ko mayul géej gi moo ko tul nañu fexe dimbali ñi dëkk côté bii quartier bi day dem ba réer bari ñi bu ñu continuer si nii day réer partout day réer lu leer la depuis 2000 ba nu xamee ba léegi sak at rek ak ñi la jox ñee dem ñeneen dañaa dem ba pëlee ina loué loolu rek tamul yaakaar leen leneen gi rek loolu yaakaar ginnax baa ngi nii la ñëw ba tëddee fii ñu toll nii am ñoo toog fii la veille si guddi gépp la veille si guddi gépp ba gi gi feesee da romb fii yëpp